mbokk mi julli gi bëgg nañ ko koy defal ku faatu sa mbokk wala sa xarit wala sa mbokkum jullit wala sa mbokkum taalibe rek ku mu ci doon rek boo yëgee ne faatu na la ci gën mooy guddi gañ ko dencee guddi ga ci jëkk tegaat ci guddi ga ca topp ba ci guddi ñetteel ga ñetti fan yooyu lañuy gën a soxla ko ko jullil ndax guddi gi gën a tiis te gën a metti ci ku mooy guddi gi giñ ko njëkk a dencee ak ga ca topp ak ga ca toppaat ñetti guddi yooyu ñoo gën a tiis ci néew bi moo tax ñuy bëgg ku saraxel ndox wala nga di ko jullil julli gi julli gi nag yow buñ ko dencee ba na foo toog rek te muy waxtu wu danga ne naafila nga yor njàpp mën nga ko julli allahu akbar ngay wax yéene ci yéene sam xel maa ngi naafile naafile gi daal di wax allahu akbar tari suratul fatiha bu la neexee ne auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bu la neexee ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin bu fàttee jeex nga teg ca ayatul kursi allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum laa taaxuzuhu sinatun wala nawm ba ca azim benn yoon teg ca saaru alaykumu takaasuru basaar ba jeex aleykum takaasur xataa surul maqaabir kalaa sawfa taalamuun summa kalaa sawfa taalamuun kalaa law taalamuun ilma al-yaqiin latarawna al-jahiim summa latarawna ayna al-yaqiin summa latusaluuna yawma izin ani nahiim benn yoon daal ci teg saaru suuratul ixlaas qul huwallaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad fukki yoon ak benn loolu yi ngay jàng ci rakka bu ci ne ñaar rakka yëpp bokk luñ ci jàng. fatiha benn yoon ayatul kursi ba ca xasimu benn yoon aleykum takasuru ba mu jeex ba saar wa jeex benn yoon sóoratul ixlaas fukki yoon ak benn saar bi bu ko defee rakka bu ne noonu nga ciy def nga daal di taaye sëlmal ba nga daal di wax ne allahumma inni sallaytu haasihi salaata wa taalamu ma uridu ibxas sawaabaha ilaa xabri teg ca tur wa bu ne ilaa xabri rek turu néew ba nga koy ñaanal nga cee teg bu dee ñaar nga wax ilaa xubóori bu dee mbooloo nga wax ilaa xubóori ba tey waaye bu dee kenn ilaa xabri ngay wax rek loolu yi ñaan googi nak ci arab boo ko mënee wax moo gën boo ko mëntit nga wax ko ci làng woo ko mëne wolof wala làng woo nga koy waxee suñu borom dégg na làng yëpp ndax moo bind xeet yëpp ak mbindeef yëpp ak nga wax rek ne yow sama borom de xam nga li tax muy julli julli gi maa ngi lay ñaan nga yebalal ma yoolub julli gi mu dem ci bàmmeelub diw loolu rek la boo ko mën wax ci arab nga wax ko boo ko nga wax ko ci wolof boo ko defee fas saasa day yebal mm, ay junni junni malaayika ñu dugg andil ay leer ak junni malaayka yu koy wettile te dañ koy indil jëmm yu mel ne yëm gënoon bëgg ci àddina xaritoog ñoom lay nuru ñu am gu neex da ko wettile du gis dara ci jafe-jafe di wut ay xéewal yu jóge àjjana mu di ko fekk ci barsàq ci loolu lay sax nag ñi di ko le di ko wetti wettile ba keru ñuy wal bofta bi te yow mi ko defal képp rek suñu borom li ma ciy fay bala ngaa faatu gis sa kër gu àjjana waaw kay jërë ngeen jëf